arena hebdo newta bisa gol sénégalais bokki amateur yi lamb yi su ngeen déggee loolu nag waaj leen ngeen xam ne am na luy waaj ñëw liy waaj ñëw lan la arena hebdo di émission boo xam ne day saf sàpp lamb ci biir Equivox TV lay xel de amee asalaamaaleykum gars yi dee leen seetaan arena hebdo ah lundi bu jot ak Babacar ci Equivox TV kañ la xel di am lundi maanaam alterné bu jot vingt une heure trente lay commencé direct lay doon ngeen mën koo seetaan lépp làmb dañ leen ko fay jox bokk na ci loo xam ne ni ci biir ay rubrique da cay am rubrique yi jàppal ñi nga xam ne dañuy ànd ak mbëri door a gàllaaj dañ leen di xel di tànnal ak lan beneen boo xam ne day amaat ci biir muy mbër mi gën a lambe di leen ko won ndax am na mbër yoo xam ne dañoo lambe ba yegg ca lool Arena Hebdo ci Equivox TV tous les lundis affiche yi tamit dañ koy xel di waxtaane maanaam affiche yi war a am ñu dëkkmal ko lépp ci biir arena Abdoulaye Amé ñu dëxañ ko mu nekk direct kon sénégalais yi fu ngeen mën a ne waaj leen arena hebdo lu xew ci làmb da ngeen ko xam bu leen ko jaaw arena hebdo dafa am lu bees ñu génnee ak kan Babacar seen mbokk seen xarit du mën a ñàkk kon gars yi cosaani réew mi 100 pour cent bu ko kenn jaawal arena hebdo xaar leen ko si Equivox TV ak Babacar incha allah 100 Arena Neptune Tapisa Gonzalez